صادق لم يكن مبارز وخير ببارز إبليس لا يبارز جندها زي الأحد لم يكن ربي لما لم يجهدي الله كان على بما يغزل لنسى بما على الوالي هدى بما هذا وخير ñu ngi fii Touba Argentine Buenos Aires journée xasaay bi nga xam ne moom la doon waaj muy nobé de Julio sant nañ suñu borom subhanahu wa taala bu baax di sant Serigne Touba bu baax a baax a baax ci fekkee gi ñu fekkee bis bi ak euh, ndeysaan xéwal yi mu àndal waaw nga ni tey jii waxi Serigne Touba rek la da doon naan entêtani mal xal ba ansa kullama madaamina duri ma ta sulama ñu doon wax naan katabtu fil barri ani la amu yadi ila nasara abidil maay watini lillaahi jalla yadi wal xalbu maa badani wa saaxali faw xamaa inda sulaytini nga xam ne tey lépp liggéeyam yëpp a nangu nga doon wax naan ijaan rujuun ilaa xawmi saxadatana wal takfina yawma jamil xalqi niirana nga xam ne doon ñaan yàlla yëpp suñu borom defal na ko tey jii lii nag ko gis ku ne xam ni taalibe yi fi nekk ay liggéeykatu Serigne Touba rek ñoo fi ne ñoo xam ne Serigne Touba rek lañ bëgg Serigne Touba rek lañ wóolu te yemal wuñ ko ak lenn xam naa ni du jomb ñu jox ci jëwriñ ni ñu fekk leen fi ne waxtaan ak ñoom ci barke Seexul Xaddim kon ñu ngi taxaw ak sëñ Yankhoba Gueye nga xam ne moom mooy jëwriñu Touba Argentine xam naa dañ koy jox mu sànni ay kàddoom ndeysaan wax ay mbégteem ci bés bi waaw sëñ Yankhoba ne ko sëñ Touba doon waxee naan katabtu fil barri anni laa amud yadi ila nasara abidil maay wattini naan lillahi jalla yadi wal xalbu ma badani wa saa xali foo ko maa ngi desulee tiini mel na kon tey bis bi bokk na ci ñaan yi doon ñaan kon sëñ Yankuba sa gis-gis si bis waaw di sant yàlla suñu borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Seexul Xadim tey sant mbokki taaliba yi teew yëpp bàyyi ko ci gox bu nekk ci réew mi yi fasanti ko eh, mboolem fu fi nit nekk rek ba ci Brésil am na ñu fa jógee eh, Touba Brésil TV Touba Argentine TV fépp fu taaliba nekk rek ñëw nga fas yéene àndandoo dox doxob jàmm nga wér sëñ am na ndam la mu waxoon ne inni uxaatibu nasara turra bi malikin mutarra tey xam ne bi and nii abdul xadim rasulillahi suñu borom defal na ko ndam loo xam ne ñun ñu ne firnde ji fas yéene àndandoo di jàng xasida sëñ Tuubaa yi ñu ngi ñëw te dellu siwaat ci saal ba tam fas yéene eggale liggéey ci njàngam alxuraan ak xasida di sant yàlla bu baax nag ci dal gi taalibe yi dal ak yar bi ak teggin yi bi marche moom waroon nag marche yi nga xam ne moom lañ baaxoo gis marche boo xam ne ngay jàng alxuraan jàng xasida te sëñ bi itam wax na ne xasaayid yi faaxat xasaayid al kiram wala yi taxuud abadan xayra maraad xasaayid yi faaxat suyuxu tarbiya wa kullu xayri wa suyuxu tarqiya kon loolu doy na sëkk kon ndokk yàlla rek sant yàlla bu baax rek ci tawfeex ju ñu yàlla defal ñu ànd koog jëwriñu organisateur Bamba Ñang ak mbokki taalibe bi yëpp daal suñu xool seet na ci mboolem ñu fi teew ñëpp rajo yi jóge Brésil ak Touba Argentine ak ñëpp rek nga am mbégte bu baax jër jëf waaw kooku mooy sëriñ Yankuba Gueye di jëwrin di ku baax wax dëgg yàlla ku bëgg sëñ Tuubaa xam naa kon ñiy taxaw sëñ Bamba Ñang day faral di dégg muy wax naan li tubaab bi bëggoon ci sëriñ bi moom amu ko te li sëñ bi bëggoon ci bi yëpp am na ko kon sëñ Bamba bisimilah di taxaw di naan sëñ Bamba. ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay. di ñaanal sëñ Mountakha Bachir mu gën a yàgg gën a wér. amiin amiin amiin eh, di ko ñaanal njaboot Serigne Touba gi yëpp di ko ñaanal sëñ Cheikh Jëmb ak mboolem Cheikh Serigne Touba rek sa xalifa ñu lay ñu ngi koy ñaanal mu yàgg loolu te gën de daanaka sax li jot wax yëpp jëwriñ wax na ko. xanaa rek di ci ay kaddu yoo xam ni du ñu def lu sant sëñ Touba bu wér ci tawféex gi ñu defal ba ñu fekkee lii ay déwéni déwéni déwén. di ñaan rek lépp loo xam ne def nañ ko ci rek yàlla nañ ko sëñ bi eh, fulal yiw ya ca ne te làqal ñu ko fa yàgg yeggul bu mukk defal ñu lépp addi addi rasulullah sallallahu taala wa salaam wax dëgg yàlla nii ko jëw di ñuy waxee it noonu rek la demee fas yéene rek takk laxasaayu maanaam eh, bañ a xàmmee fi ñu nekk yamale ko Touba ga ñu ne nga ñu fas yéene yegg ñun ñëpp te xam ni sëñ Touba moom ah ñun ñoo am fu ñuy faat at fu ñu dëkk fu ñu waaye moom lépp ci loxoom la ko ci la ko sañ borom teg eh, kon ñu xam ne rek fii ñu fi ne tam muy Argentine du ñu war a def lu dul rek mel ni Touba lañ nekk. te mooy dundal fi alxuraan ji dundal fi xasida yi dundal fi liggéeyam seen tubaab yi te fexee ne xemmem loo tubaab bi yëpp sañu jëf te loolu nag ñu ngi koy amee ci lu dul jub bëgg sañu bopp teg sañu tànk fi nga xam moom la sëñ bi teg bëggoon bëggoon ñu teg teg fa tànk bu ko defee fas jël ñëpp rek te tuubloo tubaab bi dugal leen ci diine gi comme ni ñu koy defee saa su ne jéem a njub ñun ñii te fas yéene saa su li nga xam ne moom la sëñ tubaab bëggoon ci ñun te muy ak njub. ñu teg fa sañu tànk loolu moom ci laay woote ci laay woo ñëpp di xam nag moom lii eh, wax dëgg yàlla rafet na ba doppi ndax eh, def nañ ko daaw fekke déwén defaat ko ren te ku gis ni mbir mii meen xam ni gaa ñi bàyyi nañ seen yitte bàyyi seen lépp ngir jëmmi yàlla ak sëñ Tuubaa waaye jëmmi xasida yi nga xam ni mooy kiraama yi sëñ bi kon nag xam naa ne kàddu yi moom dañ koy yamale fii rek waaye mbégte daal am nañ ko ci wéer wéer barki borom Tuubaa Mbàkke xam jox jëwriñ maam Cerno rek bu amee kàddu yi mu barke borom Touba. waaw waaw jërëjëf sëriñ Bamba Niang wax dëgg yàlla kàddu yi rafet na am solo xam naa ne ñuy taxaw sëñ maam Thierno jëwriñu maam Thierno Birahim borom Daaru Muxti kon sëñ maam Thierno dañ lay jox nga ay kàddu ci bés bi. waaw ñu ngi leen di sant bu baax te di leen bu baax te siyaar waa Touba ci rawatina waa Touba Birissine bi nga xam ne dañoo bàyyi seen yitte yëpp ci surna kuréel Seexul Xadim TV bi nga xam ne dañoo bàyyi seen lépp jóge Brésil ba ñëw fii ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm te xam ne ku tedd ki rek moo jar lii wax dëgg yàlla comme ni ko jëwriñ ñeexa suñu xol seet na lool ndax ku ne xam ne ne xasida yi ñuy màggal tey di ko jàng ci mbedd yi nasaraan yi di ko sëñ bi di bind fut ci ay tartar la ko doon bindee wax na ne demoon na ba day bënn yaramam boo mutu daa pour bind ci xasida yi kon tey ji bu ñëwee ba tey ji ñu koy màggal fii ci dëkk tubaab yi nga xam ne ñoo ko doon sonal kon loolu ak sant la xol yëpp fees na di xam ne dara warul naqar di kenn ci sëñ Touba ndax lii rek doy na sëkk ndax fu ku la fekkoon sa dëkk jële la fa tey andi la di la sonal tey fa def lam la doon tere kon kooku dox mënut a passé loolu loolu mooy ñu ne mbiri sëñ Touba amul tànk ginnaaw tànk kanam la am kon nañ jàppaat sëriñ bi xamkat mooy sëriñ bi te jàppal xes de yi faral nit dañuy gaaw di tudd sëñ bi kooku dañ ko war jël teg ko fenn ndax leneen la tey wax suñu waxi bopp tey bañ a tudd sëñ bi ndax fan ku fam fam fam fam fam egg waruñu koy gaaw a tudd te xam kan mooy sëñ bi lépp lu waaye bëgg rek bu fekkee li ngay wax sa diggante ak sëñ bi dana la yomb lool kon ñu ngi am nañ mbégte bu baax di kontaan baax mbokk taalib yi teew guñ teew ñu dox ci mbedd nasaan yi jàng xasida yi kon loolu xam naa bu demaatee ci gën a leer rek mais wax dëgg yàlla suñu xool fees na bu mënuñu wax di wax jërëjëf sëñ Touba rek